mbokk yi yaakaar naa ne ñu ngi ci cëppaandaw gi war a jàkkaarloog prési ki waral coow li Diaks Wrestling Production borom wax tuuti jëf lu bari maa lay siyaar bu baax di la bëggee di la balaax di la balax. Ciss ñu ngi lay ziar di kontaan ci yow toujours xame bi yàgg na yàlla moo ko dogal tey ñu mën a dox ba lu mel ni mën a am ñu lay gërëm di la sant d'abord di gërëm Alioune. bu baax a baax ndax bi may jëkk ñëw ci làmb Alioune laa jëkk a xam ngay tëgg simple muy lijjanti mu yoreel Gaston suñu nijaay tout ce qui organisation bu ñuy wax grand njaay Ndiaye Demba Diop yoroon Demba Diop daal di ñu boole mu jàpp yëpp nag yore affaire yi dimbali ñu bu baax a baax a baax mm-hmm. ci làmb ji waaw xamal ñu lu bëree bëree bare bare bëri bien que man làmb simple moom ma taxoon jóg mm-hmm. moom moo ma gën a puus pour mooy tëggaale dóor mm-hmm. waaw xam nga dóor nag dafa yàgg te compliquer da ngay bëgg a monter lii mbër bii d'accord mbër bale bañ te man dama impulsif aw ma patience. moo tax souvent dama naan damay bàyyi mais ñoom ku mel ni Alioune ku mel ni euh, As bi ma nekkal tey mu si jàpp bu baax ak ñeneen ñi nga xam ne yëpp mës nañ ci jàpp te ñu ngi ci jàpp euh, heure tey pour gërëm leen sant leen la ndax man xawma ci dara ñoom la voilà ñoom ñooy monté yow ci nga bokk ak ñeneen ak ñeneen. yéene bi mu am solo te yéene ngeen ma lu baax parce que lu mel nii biñ ko taxawalee muy événement du ko combat wu caaxaan de Balla Gaye ak Gris Bordeaux bii ñuy tëgg fay leen ay millions yu dul jeex hmm. bu bës baa nga xam ne Liss Ndiago àddoo leen man man dama ko yox fii ku ma ci mere yaa ko yëg sama yoon nekku ci. yaa ngi defee nag resuma leen sax du arène national <laughs> ah. ñoom ñi ngi arène national le sept ñu xool lañ fa andi. ñu foto ko. bu suñu bés jotee. ñu foto xool ko mën. ñu teg vaar. ah ñu foto xool ku mën. macha allah lay laaj mooy combat bi. ñu ko bëggoon dafa bëri. combat bi daaw la woon kenn ku nekk def say preuve. Ardo daanu fi Liss Ndiago daanu fi comprendre nga ñu aj fi Liss Ndiago ba aji ko Ardo defaat fi preuve. dabiwaat liis Ndiago ci biir làmb promoteur yi bëgg combat bi nan nga def ba décrocher combat bi parce que yaakaar naa ne beneen promoteur moo koy taxawal bu dul yow. dañu ne rek xamaa indallah kon jeex na man sonnuma si dara hmm. ñoom ñooy dox ñoom ñooy sottil hmm. loo bëgg-bëgg dara hmm. bu yàlla sot nanguwul du sotti man sonnuma ci sax aas moom ma ko wax yàgg na ne ma nañ def nii nañ def na le nañ def na le ñu waxtaan si ak mon frère Alioune depuis boobu liis ñu ngi ko suspendre Alioune ne ma noo mënuma jël avance léegi parce que dafa nekk suspension bu ko CNG déggee day mel ni dañ leen yàpp mm-hmm. ndax ñu ngi suspendre mbër mm-hmm. nga jox ko avance mooy yow faale woo seen suspension te comme ñu ngi si yoon di ñaan mm-hmm. nañu muñ ba mu jeex ñu xool ñu nekk ci boobu logique ba mu génnee ba yàlla def mu sotti ñoom li li ci euh, as expliqué yëpp gis nga ko ba dem ba yàlla sotti lépp. ñu li ñu doon def ñu demander euh, kii grace ñu may ñu ko xale bi libre parce que xale bi boo xam ne li muy def ci làmb ñëpp xam nañ ko alors ku mel noonu mënoo ko suspendre pour loo xam ne du fëtam bu ñu waxee dëgg rek supporter bu excité di def li muy def ci tribune nga nga nga sanctionné mbër jaaduwul man dëgg fu mu fekk fa la may bàyyi. Liss Ndiago mi santewul benn supporter mu dajji chaise ah Baba Jaxal hmm. wa ilaa noonu keneen noonu hmm. xale yi ñooy excité hmm. parce que làmbu dóor moo demee noonu supporter njaboot gu yaatu la mënoo si dara lu nekk nekk ci biir njaboot gi nag ah yàlla ba la joxee njaboot lu ne lay def ci biir te par force di nga leen njaboote loolu mooy mbër bi li ko topp yëpp contrôlé wu ko mënu ko contrôlé mënul joxe ordre na def leen lii ñu def ko xale yi ñooy excité parce que enjeu bi mooy demee noonu parce que ñenn ñi dañuy bëgg victoire parce que ñenn ñi mënuñu gëm ñàkk te loolu si nature humaine la nekk doomu aadama moo demee noonu ñëpp àndu yar ak tey am na ñoo xam ne day naqadi ñu muñ ko gérer dem am na ñoo xam ne bu leen tuuti yëngate ñu toj àdduna bi àdduna moo demee noonu doomu aadama moo demee noonu yàlla moo ñu bindee noonu bu doon ñëpp dañu ne tekk mel ni ay xaru yar kon àdduna bi du sotti comprendre nga fi may waxee. voilà CNG il faut ñu xoolaat seen comportement ci côté boobu. mbër yi ñuy suspendre. ñëw leen defar arène bi daf leen lii def leen lee du dëgg man Jax maa ko wax. yàq doo defar. yàquñu ko mbër a ko yàq. lan ban ban preuve nga am ne supporteru Liss Ndiago moo yàq affaire bi. tu de dix mille personnes dans le stade. parce que ñu ngi toog benn boor di yuuxu rek. sees yi naaw na foofu rek supporter Liss Ndiago la wala Y. ban preuve et même suñ ko yàqee même suñ ko yàqee avant ñuy defar stade bi ba ñuy defar stade bi waxoon naa leen ko nañ delloowaat VAR temps président Alioune Sarr a fi ne ba ñu defee li ñuy def laa ne li ngeen def baaxul wax naa ko devant le ministre Matar Ba ñu ne ma non nit ki day évoluer de ma ne leen ma ne booy liggéey projet architectural man architecte la jàngeewu ma fenn fu dul Amérique muy dëkk boo xam ne dañ ko ràññee ci àdduna bi te duñu jàngalaate jàng jàngalu caaxaan booy defar projet architectural li ngay jëkk xalaat mooy ki ngay tabaxal naka la mel naka lay dunde defaral ma villa rek ma trasel la loo xam ne yow mënoo ci dund est-ce que loolu mën na am sens defaral ma arène kan mooy dugg ci arène bi macha allah xam naa parenthèse boobu dinaa la jël si ñu gën a waxtaan ci règlement wu làmb surtout ci CNG bi ni ñuy doxalante seen diggante ak yéen parce que fi mu ne nii buñ ko toppee émission bi day gudd parce que yëg naa ne ñi ngi joxe date yi yi ñi ngi bind leetar loolu yaakaar naa ne soo autre chose beneen affaire la boo xam ne war nañ cee toog ñu def ci jataay ñu waxtaan ci mais jouru Liss Ndiago ak Ardo lan lan ci mën a xaar parce que journée d'espoir la combat la boo xamante bi ni coow la ci groupe WhatsApp yi bi bi bi génnee ci victoire bi digganteeg Saba ñu aji Liss Ndiago ñëpp ne combat baa ngi noonu ni nga def ba taxawal combat bi wax nga ko lan lan ci mën a xaar ci ay combat yoo xamante ni day mel ni ñoom wala da leen non liñ ci mën a xaar wax nañ la ko Liss wax na ko Aline wax na ko ak ak ak ak euh, ak kii ak as man aw ma lu ma ci wax ñoom li ñu xam ci làmb man xaw ma ci xaw ma sax dixième am dégg dama ne man xaw ma sax dixième am li xale yi di drainer ñoom ñoo ma ko gën a xam nee naa la événement bu mag lañu am ne li ma la jox exemple nee naa la bala Gaye ak ak ak ak euh, ak Gris Bordeaux ñun ñoo leen di duma bu soobee yàlla loolu kay <laughs> booba loolu kay doy na wax mm-hmm. donc xale yi li leen war xam nañ ko mm-hmm. ñoom dinañ ko def ku ci nekk mm-hmm. bëreloo jag sa bopp ngay bëreel pour say sa bopp ngay bëreel liis am na fu mu jóge am fu mu bëgg a dem ardo am na fu mu jóge am fu mu bëgg a dem te li koy maye arène bi fi actuellement li koy maye mooy loo am ci mbooloo mu ñëw sotteeku si parce que looloo fi xew fi mu nekk nii liis ñaanul yàlla mu bërewaat mbooloo ba mu àndi woon ba ñu suspendre ko di wàññeeku dafay tegu ardo it noonu keneen noonu keneen noonu xale yi nga xam ne moom nañ ci war a dugal parce que du ñoom ñaar rek ñoom arène ah. bi dix combats la mhm. ña ci war dinañ ci xalaat ñoom Alioune ñoom euh, As mhm. yow ñeneen ak ñeneen ñi nga xam ne yéen xam xale yi parce que xale yi foog nga xam leen. voilà yéen si xalaat xool ñi ñu war a boole ñi tolloo ñi nga xam ne am na mbooloo ba nga xam ne bu bës baa ku ne bu defee li ko war mm. li leen wax 14 ah ah buñ ko tëjul du sore fiñ koy tëjee waaw. mi ngi noonu ñu xam ne 14h làmbu xale am na wax dëgg yàlla combat la boo xamante bi nii dañ koy féliciter comme moom la yàlla dogal mu taxawal ko man gisoon naa ne yeneen promoteur sax mën nañ ko taxawal parce que proposition yi bari woon na ci diggante Ardo ak Liss Ndiago ñi ko bëggoon bari na comme moom la ko yàlla suturaal dañ koy féliciter bu baax baax di ko ci ñaanal réussite totale lim ci bëgg moo ko xam yàlla ko yàlla defal président lan ngay tàggoo ak lan ngay jox amateur yi rendez-vous di sant bu baax a baax a baax Alioune ak ak euh, As ndax ñoom la du man man dañuy ñëw rek na ma defal lii ma def loolu donc bu lii taxawee ñoom la donc di ñaax aussi mbër yi muy liis mi fi ne ak ardo bi nga xam ne mu ngi si yoon bi ñëwagul ñu gën a góor góorgóorlu gën a farlu bu soobee yàlla ñëpp ngi naan Jax moom day teg tëgg ay mbër du def promotion <laughs> bii moom dinañ dinañ ci tax rib ndax programme bi buñ ko tracé <laughs> mm. li ci war fii ba boobu mm. dinañ ko def du ñu xaar ba mu des weer wala ñaari weer ñu naan dañuy jóg non dañuy commencé léegi léegi léegi di jëli xale yi entraînement di wax ak ñoom di yéeg ak ñoom di wàcceek ñoom lu Alioune xalaat ne war nañ ko def pour mu gën a jàll dinañ ko def lu aas xalaat ne war nañ ko def pour mu gën a jàll dinañ ko def yow mii nga xam ne lu may liggéey yaa fay jiitu yaay taxaw loo leen ci xalaat ne moo war a doxal yëf yi bu soobee yàlla nañ ci taxaw pour que mu nekk événement bu rëy rëy rëy boo xam ne xale yi dinañ gën a wane seen bopp ñu xam ne làmb ji nekkatul ci tur yi ñuy wax toxu na ci xale yi toxu na ci xale yi voilà loolu moo am solo voilà en passant may lancer aussi un appel euh, amaat nañ beneen événement boo xam ne man ak champion Yaxya Diop Yékini ñoo ko taxawal muy boo xam ne mosul am ci lut simple làmb joo xam ne onze million la ñuy teg bu soobee yàlla bu saison ubbee ci lutte simple muy arène nationale loolu il faut ñu defal ko débat boppam dama profité aussi lii pour dugalaale ko si daal man ak Yaxya Diop voilà comme ñun ñooy ténoru lutte simple yi voilà voilà ñaari ñaari ñaari patron yi ñu lënkaloo hmm. voilà daal ànd ak euh, woo ay promoteurs yu bari ñu ñëw toog waxtaan pour loo xam ne day suqaliwaat lutte simple et bëgg a def nag événement boobu mu nekk fer de lance bi daal hmm. incha allah à peu niñ ko bëggee ak fañ ko bëggee seet ndax mën nañ am loolu parce que ñoom ñoo ñoom aussi ñoo joxe date yi bu ko defee ñu mën a programmer loolu ñoom li euh, liis ak ardo tamit defar nañ papier yëpp pour que as as mën ko dugal rapidement lu ñu fay caution yi date bi ñu bëgg ñu jox ñu ko comme parce que looloo fa am li fa am moom loolu ngay def muy dëgg muy ñàkk dëgg c'est sa qu'ils en train de faire donc euh, on va le topp ñëpp parce que boo deful tamit ñëpp àndandoo dem def kii mais xam nañ ne loolu jaaduwul moom lu ñëwagul moom mën a goo ko joxe waxtaan wax dëgg ca la mais yàlla baax na. jërëjëf bi ngi noonu président la woon comme ni mu ñu woowee woon ci combat bi nga xamante bi nii taxawal na ko fii ci diggante Cobra ak xale ba nga xam ne mooy Serigne Ndiaye numéro 2 ak yeneen combat yaakaar naa ne gis ngeen combat bi nga xam ne tëggoon na ko ci diggante caatu Daouda Fall ak Kaw Gourdin ñaari mbër yi bañ ca jógee ba tey gis nga leen ci biir làmb bari nañ coow ñëpp ñu ngi leen topp di leen tëgg loolu la 4 décembre la woon nga gis aussi tamit ci journée bi nga xamante bi nii génn na ko muy 19 join bi ñu génn ci diggante Talfa ak Diassipal Sabala ak Mbay Sempi macha allah nga gis combat boobu aussi tamit ba mu jàllee ba tey Talfa ñu ngi wax ay kombaam yoo xamante bi nii macha allah xam naa ne d'ailleurs léegi mu taxaw di leen jox dig daje ba beneen yoon ci seen lamb TV jërëjëf.